yàlla moo ko préparé woorkat yi muy Baabu Rayaan yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla defal suñu waxtaan wi weesu waxoon nañ li tax yàlla subhanahu wa taala faratal koor mooy def ñu ko jox ngir ñu ragal ko ragal yàlla googu nga xamante ne ni yonent yi musoon a ñëw ñoom ñëpp moom lañ woote woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw woote ci waaye tamit kazalika mu jox ñu lu ñu koy may mbokk mandarga yi nga xamanteni ni moy mooy mandarga yi gars ragal yàlla tay mom lañ bëgg waxtane bo démé ci ali imran yàlla subhanahu wa taala dafa wax ni wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil lilmuttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين walladina ida faalu faaxishatan aw zalamu anfusahum dakaru llaha fastaxfaru li dunubihim wa man yaxfiru dunuba illa allah walam yusirru ala ma faalu wahum yaalamuun mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala daf ñuy limal foofu yenn màndarga yoo xamante ne nii mooy yi nga xamante ni moom moo nekk ci gaa yi ragal yàlla mu wax ni na ngeen njëkkante jëm ci àjjana yoo xamante ne nii toy na ni asamaan ak suuf na nga ko préparel gars yi ragal te ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ni dañuy làmb seen poos di joxe moo xam mu nekk lu fés comme lu mel ni ku taxawoon ci jàkka di yalwaan nga làmb sa poos jox ko wala mu nekk loo xamante ne nii lu fésul la nga dimbali nit te kenn yëgul waaye tamit bokk na ci màndarga yi nga xamante ne nii ku mu nekk ci yow ku ragal yàlla nga wala bokk na ci mandarga yi ñuy xaar ci nit ki mu buwoo ko ngir am ak ragal yàlla nga nekk koo xamante ne da ngay wan mer da ngay wan mer waaye koo xamante ne nii chaque jour foo ko fekk day mer rek ñàngal fas kanam yaa ngi dégg xuloo guddi xuloo bëccëg du baale kooku na xam ni pareegul pour am wala pareegul pour bokk ci gaa yi nga xamante ne nii dañoo ragal yàlla moom la yàlla wax ni wal kaazimiina al ghayza waaye nag wal aafiina ani naas bokk na ci mandarga yi wane ku mu nekk ci yow ku ragal yàlla nga mooy nga nekk kuy baale kuy jéggale koo xamante ne nii doo topp nit di ko mere wala di ko def loo xamante ne nii sax lu ñaaw la ngir topp sa mer yàlla wax nag ni bëgg naa gaa yi nga xamante ne dañuy jëf-jëf ju rafet te mooy ñiy wann seen mer ñi nga xamante ne dañuy baale ñi nga xamante ne nii dañuy ah, ah, saraxe te yàlla subhanahu wa taala tax wal kaazimina al ghayza wal aafina an innaas والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم bokk na ci it ba tey mandarga yi wane ku mu nekk ci yow ku ragal yàlla nga nga nekk koo xamante ne nii saa yoo tarxiisee ba def bàkkaar rek da ngay fàttaliku yàlla subhaanahu wa taala nga daal di ñëwaat daal di delluwaat daal di tuub daal di delluwaat ci yàlla subhaanahu wa taala mandarga yi ma fi wax mooy yi nga xamante ne nii ku mu nekk ci yow ku ragal yàlla nga te loolu bokk na ci li la koy may mooy koor ndax yàlla subhanahu wa taala moom moo wax ni yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ngir ngeen ragal yàlla subhanahu wa taala ndax ragal yàlla ci la teddaange nekk benn waaye dafay wax ni gisuma ak teddaange lu dul ni mu ngi nekk ci ragal yàlla falastu ara saadata jama maalin walakin taqiya huwa saidu wa taqwa allahi xayru zaadi zuxra wa inda allahi lil atqa mazidu nee na daal ragal yàlla fala teddaange nekk nekkul ci alal nekkul ci ay kër wala yu ni mel kon yàlla nañu yàlla may ak ragal yàlla yàlla nañu yàlla nangul suñu koor nangul suñu nawaafil nangul suñu jaamu yàlla wa ma dalika ala allahi bi aziz wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.